maaleykum salaam maa ngi lay fay Abdou Karim. ah di la mais ak si ak salaam. ah fekk yaa ma fekk sama kër. fekk ma également si suñu permanence. bu ñuy toog très souvent di waxtaan. donc bien sûr dalal dalal ak ak salaam. voilà donc yaa ngi fekk Ousmane. fekk fi également Eto aussi. ak suñu suñu gardien <laughs> bon nga fekk également aussi un collaborateur de la mairie ñeu seet si ñu mu tudd Boubacar euh, Fay euh, bokku ci moom ak ci service c'est une entreprise qui fait des études architecturales euh, mu tombe mu ñuy indil ay résultats études yu nga xam te moom la doon defaral monsieur le maire voilà donc dal leen ak maa ngi lay nuyu Abdou Karim di la remercier ci ñëw bi nga ñëw seet si ma tey si sama kër di nuyu sa mbokk internet yëpp yi nga xam te ne ñoom ñuy seetaan Sénégal jàmm TV di la ñaanal jàmm di ko ñaanal ñu ñuy seetaan di ñaanal Thiaroye sur aussi. Euh, Ousmane doomu Thiaroye sur Mer la ku juddoo yi géej euh, fowee fii màggee fii jàngee fii ba am entrée en sixième jugee fi dem te ngay jàngi. amee fa sama baccalauréat jóge fa dem université de Dakar euh, fa laa donc euh, euh, mu ngi noonu daal kooku daal mooy Ousmane Diaw waaw loolu la yàlla dogal depuis 2018 mu jiite ASC Yaakaar waa bi nga xam te ne benn la ci ay ASC yi nga xam te ne ñoo nekk ci biir zone 4 bu thiaroye sur bon li ma lii ak ñoom mooy xam nga Yaakaar Ousmane mu ngi koy wax sànq ñun dañu bokk ci ñi nga xamante ne ñoo ñoo ko ñoo ko sos. en 2006 2007 donc xam nga mbir boko sosé ça veut dire que lula ñor la suñu démé nak ba jamono di dox ba xalé yi nga xamanteni bi ngeen di sos IC bi ñom peut-être ay tout tank lañ woon peut-être bu ngeen daan dem regroupement wala bu ngeen daan dem bu ngeen daan dem réunion dañuy nelaw ci ci seen ay tank yi mag ñu fop leen indi leen ci kër yi ñu ci suñu démé bu ñew ñu mag ba mëna yor équipe bi ñew sét ci la ñala dañoo bëgg nga ñew déllu ci wa jàppale ci équipe bi ñooñu euh, relation bu particulière moo leen di moo leen di boole loolu moo boole ak xale yi mu nekk ay xale yoo xam ne dañoo màgg di gis ASC bi di dox di dem ba yàlla dogal affaire bi ñëw seen loxo yàlla dogalaat également nga dellu siwaat nekk président si seen biir loolu moo tax sama ànd man ak ñoom mu neex mais aussi mu nekk ànd bu ànd ànd ak complicité waaw fii mooy fii mooy permanence yaakaar ça fait bientôt euh, ñaari at mu ngi nii yoo xamante ne ñun amuñu nawetaan amuñu noor fi la dajé dajee tout temps man suma wacce fi la laa leen di fekk fi nekké suma fi nekul fii seen bërëb la bañ nga bañ nga ba gis nga ko amul buntu amul dara kum neex dugg kum neex genn waaw donc euh, euh, yeg yeg bi aussi lolu la man dama japp né ASC yi dafa wara a nekk ay cadre de formation pour suñu rak yi nga xam ne dañu koy fréquenter parce que doomu aadama bi day day juddu ñu yar ko ci biir kër gi ñu joggé ci kër gi dem école ñu am benen yar bu ñu def ci mom mais dafa am yar bu nga xamante ne doomu aadama bi du ko am mukk lu dul ne dafa am occasion frotté wu ak ay naataangoom di waxtaan ak ñoom di jël ci kii lii di jël ci kële lële di jël ci kële lële loolu dafa bokk ci formation moo tax man damaa jàpp ne ASC yi euh, ASC yëpp dañoo war a doxalee nu nga xamante ne day tax ñiy fréquenté ASC bi mën a jàpp ne ASC bi man mu ngi may jëriñ ci wàllu formation parce que xëy na fi ma jaar moo tax ma jàpp ne noonu la war nag yàgg naa ci Abdou Karim ñu bëri dañ ko xamul mais maa ngi tàmbali def politique peut-être en 2006 2007 xam nga man ci famille socialiste laa juddoo sama wayjur bu góor caaroy géej ñëpp xam nañ ko euh, góor gi Keba Diaw euh, bi muy doog a ñëw caaroy dans les années 1981 dafa créé woon benn mouvement bu ñuy wax mouvement pour la rénovation de caaroy sur mer loolu moo ko dugal biir caaroy mu nekkoon acteur politique doon yëngu ci politique dans le dans le cadre du parti socialiste je me rappelle en 2000 bi ñuy joxe résultat élection yi Abdou Diouf euh, président Abdoulaye Wade maa ngi toog di ko ataayal moom ak euh, góor gi dem si yàlla Alaaji Paté Bey ak suñu waajur El Hadji moom Fall ñu toog ci biir ma leen di ataayal ñu déglu résultat yi yàlla di dogal juróom-benn après ma dugg ci politique nekk ci keppaaru El Hadji Mamadou Fall donc man politique euh, duñu ci duñu ci gan naam suñu ay at bëriwul mais bi ñuy tàmbalee def politique ak léegi yàgg na parce que depuis 2006 mu ngi koy def parce que bi ma duggee ci parti bi. ay côté 2008 ci lima gëna gën ci la ci la xam El Momodou ño bokkoon ben képar don dajé tout temps comme ni nga ma féké ni ma nek fi ak xalé yi non nga ñu daan féké ñu nek ci képaru El Momodou Fall ak suñu doyen Bayran El Ndiaga gey ak suñu mama tala cham man monsieur le maire mbay si Moustapha Jamil sar souleyman Si Ngagne et cetera bay mbay Diop également ñun ñëpp nga daan fekk ñu tok ci képaru El Fall mu ñuy former ci politique lépp lu nga xam te ne daf ko daan def aussi ñun ñoo ko ko doon defal wala ñun la doon sàkk su ñun te te di ñu wax exactement nan la ñuy def pour def ko donc El Mamadou maa ngi ko xam depuis ci jamono yooyu mais aussi ñu seqaat au delà de ça ay ay mbir yu bëri ñoo nekkandoo woon foyer des jeunes bu Thiaroye-sur-Mer bi mu jiitee le comité de gestion man maa nekkoon le président de la commission éducation culture suma ma ñu dem également association des élèves étudiants de Thiaroye-sur-Mer nekk le vice président Moustapha Jamil Sarr nekk le président man ma nekkoon seen président en charge des affaires extérieures donc euh, foofu yëpp jaar nañ fa en tout cas lépp luy mouvement associatif bu nga xam te dañ ko dañ ko séq man ak moom caaroy sur mer amoon nañ fa ay relation balaa balaa tey di ñëw euh, waaw xam naa li ma la ci mën a wax bëri na parce que jaar-jaar la bu bu bëri expérience parce que euh, at la bu nga xamante ne na jàng nañ ci lu bëri ci anam yu bëri nag aussi parce que défi bu mag moom la Thiaroye sur Mer jël teg ci loxo monsieur le maire maître El Mamadou Ndiaye mu tànn ñu comme ay collaborateur pour ñu accompagner ko pour mën a mottali yéene bi nga xam te moom la waa Thiaroye am ci moom mais daal mu nekk at bu nga xamante ne vraiment li ñu ci dund xam naa xajul ci émission mais daal dund nañ ci lu bëree bëri ci ay anam yu bëree bëri aussi hmm. waaw ñun ñëpp dañu jooy on a on a pleuré mu ñu fekk ñu nekk buntu biir Mustapha Jamil Sar, fala parce que fala ñu installé woon QG bi nga xamantene mom mo doon réceptionner les résultats yi nga xamantene suñu ay mandataires ñoo ñu ko doon jox au niveau des centres de vote biñu ñu résultats yi très sincèrement dañu dañu joy avant avant ñu jubiler parce que euh, dañoo sentir né dafa am benn poids bu nekkoon suñu ay mag ñun ay doomu caaro yi nga xamantene dañoo judo caaro sur mer di ramper di ramper ba aksi fi ñu mais aussi. Euh, ñu yëg ne am na défi bu tegu suñu kaw parce que ci candidat yi ñun ñoo ci gënoon féete ndaw donc bu ñu ñu tànnee si ñëpp dinañ jàpp ne kon am na sas bu rëy bu nga xamante ne à partir de jour boobu noonu yàlla jël na ko teg ko ci mbagg monsieur le maire Maître El Mamadou Ndiaye donc vraiment bisu mbégte la woon surtout nag bi ñu génnee ba ci ñëw ba ñëw ba ci koñ bi fekk waa koñ bi yëpp génn di jubilé taxaw di ñu xaar donc vraiment keroog moom suñu xol yëg na lu nga ne li koy yëg

ci ci romb métti yooyu noonu ci la ñuy atteindre suñu objectif te yàgg nañ si suñu dund di jànkonte ak ay situation yoo xam te ne c'était situation de défi donc euh, euh situation lu mu métti métti yàlla dinañu may la mentalité pour ñu mën ko surmonter waaw métti na mais ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax parce que voilà am nañ yaakaar ne xëy na li ñuy xaar si ñun même bu fekkee ne matewuñu ko à 100 pour cent yi tamit ñu ngi ciy jéem lu ñu mën et c'est le plus important mën nañ ci wax lu bëri mais xamna liñ ci gëna wax rek euh façon bu muy gérer la mairie de Thiaroy sur mer parce que El Mamadou nekul un maire individualiste manam la gestion daf ko def une gestion collégiale waaw quand je parle de gestion collégiale moy ñi nga xamante ne ñoom la dénk ay ndomba tank ci ndomba tank biko Thiaroy Thiaroye da fay partager ak ñom gestion bi nga xamante ne moom lay gérer Thiaroy sur mer fay waxtaan ak ñoom ci décision yi nga xam te ne moom la war a jël pour doxal caare sur mer dafay bàyyi seen fay bàyyi xel seen xalaat bu baax a baax a baax ci ni nga xam te ne noonu lay doxalee caare sur mer te man am naa yaakaar ne loolu bokk na ci li tax ba fi ñuy waxee nii ñun ak yow monsieur le maire euh, defagul lu nga xam te nit mën na ko jàppee njuumte ci gérer bi nga xam te ne moom lay gérer caare sur mer parce que dafa impliquer tous ses collaborateurs dans la gestion de la municipalité waaw ñu ngi waajal ñu ngi waajal bilan parce que bon def nañ benn at donc yoon la aussi bu ñu defee at mu dellu si waat ci waa Thiaroye yi nga xamante ne ñoo dénk monsieur le maire maître El Mamadou Ndiaye pour wax leen ci at bi nga xamante ne moom la ñu romb bi ñu dénkee ak léegi lan ak lan la fi monsieur le maire teg ci ay jéego pour lu jëmale Thiaroye géej kanam xëj na nag dina teel pour wax ci bilan bilan bilan li nga xamte ne moom la ñu mébét yëpp mais quand même au moins ñu def un bilan à mi pas mi parcours mais bilan peut-être euh, annuel au moins ne serait-ce que sax pour euh, respecter notre engagement de, de transparence, notre engagement également de, de, de gestion euh, participative. Au moins, may waa Thiaro yi nga xam te ñoo monsieur le maire maître El Mamadou Yaye ñu xam à peu près lan la lan la cin di xeeñ parce que loolu tamit c'est important parce que xam li cin di xeeñ moy tax ñu am yaakaar ne bu ñun yàqee ëllëg inshallah dina mëna neex. waaw alhamdulilah rabil alamin Abdou Karim. bu fekkee ne ñu ngi ci vraiment ñu ngi ciy sant yàlla bu baax parce que aussi loolu mooy loolu mooy monsieur le maire ñun ñii di ànd ak moom di liggéey aussi loolu mooy suñu yéene mooy suñu rombee si mbedd caaro yi ñu mën a siggi parce que xëy ñu yëg ne li nga xam te ne moo taxoon waa caaro yi tànn monsieur le maire monsieur le maire mu ngi ci yow yaa ko waxal sa bopp la réflexion de l'école monsieur Niang effectivement monsieur le maire def na ko ba pare def na pose première pierre état civil bi nga xam c'était une promesse Eh, eh, exactement ta sax bala muy def première pierre dafa am lu mu ñëkke dafa agsi daal délocaliser état civil bi ndax japp na ne melokaan bi état civil bi nekkoon nekkul lu gën ci ay kat nekkul lu gën également ci ay doomu caaro yu ñëw di fréquenter état civil bi mu jëlé état civil fu mu nekk yobbu ko ci benen bërëb mais laataa mu ko yobbu ci bërëb bobu mu investir fa xaalis bu bëri ba bërëb bobu am bu nga même le président du tribunal bi mu fa ñëwé dafa japp né fi sax mo gën fi ñu mm-hmm. mais yamul fofu mu ne damay tabax état civil bu bees alors que ñëpp dañ doon xaar mu réhabiliter ko rek mais moom il a décidé reprendre intégralement le bâtiment daaneel ko def pose première pierre ba fi may waxee ak yow nii liggéey bi tàmbali na donc loolu ñu ci sant yàlla mais également tey aussi euh, muy ci euh, réfection wu euh, état poste de santé bu Thiaré Azur démb la doon def lancement travaux yi loolu tamit mu koy def en partenariat avec Auchan dans le cadre de li ñuy wax responsabilité sociétale des entreprises donc yii bokk na ci ay jéego yu nga xamante ne monsieur le maire euh, ci at bi ñu génn jot na ko fi teg euh, mu méngoo ak euh, également engagement bu nga xamante ne jëloon na ko ci waa Thiaroye waa man Euh, je suis de formation biologiste, mais en même temps, euh, man euh, volet administratif ben cabinet d'ingénieur ben cabinet architectural bouillant aussi tout ce qui est bâtiment tout ce qui est conception tout ce qui est réalisation de projets de construction euh, faire des plans 2D des plans architecturaux des plans 3D waaw ci loolu daal la ñuy yëngu moom moo taxoon tey ma ñëwoon fi tey pour seet si sëñ Ousmane euh, ci benn projet bu ñuy liggéey actuellement boo xam ne ñoom ak mairie de Thiaroye ñoom ñoo ko bëgg a def ici à Thiaroye waaw donc euh, loolu moo waraloon samay tànk fii tey sëñ Ousmane moom wax ci moom dama si kontaan parce que avant tout peu être que àdduna dafa dox bañ sekk liggéey mais avant tout sama grand la parce que man mën naa ne yàgg naa Thiaroye dila défé sama cursus scolaire yépp parce que école Malick Diop école 2 falaa jangé jangé sem tiaroy jangé lycée tiaroy ba sal fala amé sama bac ba ni may demee université donc a naa Thiaroy depuis temps ans au boy ngi fi mu nek sum grand donc tay buñ démé ba tay ma ñëw fille ci kërëm yow aussi fekk nga seet ko dans le cadre de tiaroy et dans ce qui fait avancer tiaroy dama ci am fierté parce que du du luma ma bu ma ñëwee fii tey fekk fii parce que c'est un grand euh, qui a qui s'est toujours investi pour Thiaroye c'est un grand qui a toujours voulu faire avancer Thiaroye donc kenn kenn la koo il y a na di di di yëngu yàgg na di ñaax ses jeunes frères pour le faire avancer le Thiaroye pour xool lu lu lu jëmal kanam Thiaroye donc li du du du bulet quoi wala du lu ma je veux dire. wa déjà diko refetlu diko ci féliciter mais aussi diko encourager ndax xamna né ne euh, c'est un c'est un gros travail parce que tay nit ñi ñom ñoko yaakar mom ak monsieur le maire nit ñi ñom ñoko ko ñoo leen yaakaar leen fi donc déjà di leen féliciter ci lolu di leen encourager aussi ci t'as yi nga xamné mom mo leen fekk mais amn'a ci ñom yaakar am ci ñom confiance parce que yàgg naa gis engagement yàgg naa gis seen taxawaay ci Caaroy avant yalla di def li donc Euh, di wax ne rek yal na leen ko yàlla yombalal yàlla dimbale leen ba yen bi bañ a diis ci ñoom yàlla dimbale leen ba mbébét biñ am yëpp ñu am ci lu raw seen njort ci lu baax pour développer caaro yi incha allah. Ousmane Diaw dañ ma parce que nekk na président boo xamante ne ci koñ bi représenté ASC Yaakaar nekk baax xam nekk koo xamante ne te na ñëpp. bëgg ASC am loolu moo gën a yokk tax ma ñëw seen ASC sax en fait que nag man dëkkuma fi mais gan laa fi waa maa ngi jóge ba Maris mais li ma gis muy doxalee fii nii secteur bi nekk na loo xamante ne lu rafet la ci quartier bi waaw mu ngi def lépp moom mu ngi def liggéeyam xam nga waaw. kontaan non kontaan naa trop. waaw oui ah. kontaan naa trop. man maay ak central Égypte bi. waaw rafet na waaw li lay bu bëggee wax ci Ousmane moom xam naa ni fii laa waaw parce que boo nee Ousmane rek te nee naa léegi man pas Ousmane Diaw laa tudd te man aussi man ak moom on est des frères ñoo bokk ndey ak baay il est président de l'équipe sur le de l'ASC waaw en même temps dirigeant Euh, ICB aussi Depuis la depuis création de Yakar, ndax mën en wax ci ñi créé IC Yakar. la en 2006 bañ commencé presque deux ans 3 ans après mon liggéeyam xoj ko ba ay à 7 ans En 2018 mu nekk président yakar bimu nak mu nekk lo xamni frappant la au niveau de carrière sur Mer waxuma au niveau de yaakaar mais au niveau de Thiaroye sur parce que ay activités yoo xam ne yu yu nit xalaatul woon ni mën bokk na ci nawetaan mu ñëw insérer ko ci ci mouvement bi. bi nga bis bu dëgguwul man mii di rakam man mi nga xam ne ñu bëri dañoo jàpp ni man lu mu nekk rek maa nga ca aveuglement non bu nekkul ci lu loo xam ne nekkul lu jaar yoon la maa koy njëkk a wax wala maa njëkk a taxaw publiquement ne lii tegawul ci yoon. Mm. waaw kontaan nañ ci loolu sama nit la ndax bu ma la nee idole rek ça veut tout dire oui kontaan nañ ci bu baax di ñaan yalla nak mebetam ci ciaré yalla naka yalla yok ah, da nek li mu mëna wax ci mom bari na wol nit ki nga xamantene mom vraiment ma sha allah lepp lo mun di wax ci mom mom lu baax rek ngay wax waaw vraiment taxawul taxaway bi nga xamni moy lu jaamu yalla rek suñu borom waaw nit ku baax la nit ku la ah, muy doxale mom ay activité mom jaaro yëpp a si wax nag waaw vraiment macha allah lépp lu ñu soxla moom daa nekk moom lay ñëw taxaw laaj ko bu ci amee xel mu xelal leen ci à loolu moom naay waaw waaw fii mooy e ghetto bi daa nekk gaa yëpp fii la ñu waxtaanee waaw waxtaan waaw teg baraada bi xool idée yi xalaat yi nan lañ def ba doxal affaire yi waaw. xam nga olof ñaay day wax naan dige dige la. te monsieur le maire moom moo def campagne dugub biir Caaroy géej yëpp wax ne man su ngeen ma falee ma nekk maire Caaroy sur Mer dinaa góorlu ci cadre de vie bi xam nga Abdou Karim cadre de vie dafa am dafa am solo ci dundu doomu aadama parce que dafa bokk ci li nga xamante ne nit ñi dañ la ci dañ la ciy nawloo waaw moo tax soo xoolee sax li lay wan ne cadre de vie ñor na monsieur le tey soo duggee ci biir maire bi di nga yëg ne mom limu limu limu bëgg ci cadre de vie mu ngi koy wane ci mairie bi nga xamantene mom ne moom fa lay xëy bis bu yalla sàkk mom ak ay collaborateur motax bi mu ñëwé bu lancer ce qu'on appelle une opération de désencombrement fep fu nga xamantene nit nit da fay tok ah, di fa def activité te xëñ na bi du yoon ba paré aussi tok bi am impact ci environnement cadre de vie bu Caaroy Géej mu ne dina ci jublu lool nak man dama ci profiter vraiment en tant que son chef de cabinet pour lancer un appel ci ñi nga xamante ne mbir mi ci ñoom lay dal ñu xam ne jubluwaay bi du du soxor jubluwaay bi mooy fexe ba suñu cadre de vie mu ñoŋ parce que nit ki mën na toog ci bërëb di liggéey mais mu nekk bërëb bu nga xamante ne bërëb bu mën bu nit mën a toog di liggéey la parce que am na fi ay bërëb yu nga xamante ne soo ko soxlawee boo ñëwee ci mairie bi ñu autorisé ko ñu moytu di fekk bërëb bu nekk rek ñu mën fa toog liggéey parce que am na bërëb yoo xamante ne dafa nekk ay bërëb yu ñu war a bàyyi pour que dëkk bi mën a noyyi dafa nekk ay bërëb yu ñu war ñu war a bàyyi pour que nit ñi suñu amee ay événement yu nga xamante ne xëy na événement mbégte la wala muy événement naxar ñu mën a am fu ñu toog pour dajaloo pour mottali seen événement boobu moo tax dañuy invité waa Thiaroye sur Mer ñu nangul monsieur le maire yéeneem boobu accompagner ko ci aussi maintenant nag li tax aussi ñu mën ko réussir mooy dañu jàpp ne euh, ni ko tubaab bi di waxee pour faire des omelettes il faut case des œufs donc euh, loolu rek moo tax ñun à chaque fois que ñu japp ni li lu yanu maanaa la lu ñu def la certes du neex ci suñu xol suñu kay def suñu ay mbokk yu nga xam te ñun ak ñom ñoo bokku ciaro yi mais buñu xamé né pour defar da ngay xaw nuro nuroo yak rek ñun on n'hésite pas on se dit que peut-être que nit ñi mën nañu baña comprendre pendant que monsieur le maire di ko wala pendant mu koy def mais su paré rek ba nit ñi gis way bi dinañ xamné ne ñakoon ko def sax wourul donc loolu la parce que monsieur le maire ku ko xam-xam ne euh, du kuy du kuy yàqalaate waaw parce que ci taxawu ci jàppale doomu caare sur mer yi ci lay nekk bis bu yàlla sàkk kon kooku mënul yàqal waa caare sur mer mais dafa fekk rek ne dëkk bi aussi dafa bëri ay ay mbir yu nga xamante ne peut être ni muy doxee bokkul ak ni mu war a doxee te loolu tamit foog ñu jooyanti ko waaw loolu day bon dañ ciy sant yàlla bu baax suñu borom ndax moom moo ñu ko moom moo ñu ko suuxatal mais aussi dafa nek ay nit ñuko ko ñu nga xamantene euh ben dañu dañu yag wa parce que and bi aussi ça date pas d'aujourd'hui donc amna fuñu jaar xamante nañ bu baaxa baax banen bi aussi moy yalla dogal na dañu yéenante ci suñu biir et lool tamit c'est très important pour ay nit yu and parce que ku ci nek ci ñun da ngay xolé sa morom ñi ngay xolé sa bop ku ci nek si ñun aussi réussite bi nga yéene ci sa bop ci mission bi dénk pour ci ci mairie bi réussite bu toll noonu nga yéene sa morom bi nga bokkal liggéey bi leneen li aussi mooy ñun dañoo am habitude di transcender suñu ay personnes yu bopp mais mettre intérêt wu caaro yu géej ci suñu kanam ñun ñëpp parce que jàpp naa ne tant que ñu ngi mettre intérêt wu caaro yu suñu kanam ñun ñëpp jàpp naa ne suñu ànd mën na neex parce que ku ci nekk su ñun sa morom même su amee njuumte ci doxalin bi da nga koy comprendre parce que da ngay xam ne yéene bu ëpp moo ko yóbbu ci mu am njuumte loolu c'est très important di ñaan yalla suñu borom mu samal ñu déggo musamal ñaan yalla suñu borom mu samal ñu euh, complicité bi am ci suñu biir ba yaakar bi nga xam te la am si monsieur le maire yaakar bu mu mën wa da fay rejoindre appel bi mo doon def sank parce que ñi ñu fa jëlé won ay doomu ciaro sur maire lañ euh, amna ci ñu délu ci wat motax ma doon lancer l'appel bi may doon lancer sank di wax né euh, ñun liñ ci jublu ci def nekul pour yaxal len donc suñu ko comprendre nonu dinañu mën a jàppale surtout dans le suivi parce que xam nga aujourd'hui monsieur le maire mënul positionner un agent municipal fépp fu nga xam te dafa def une opération de désencombrement donc pour que après suñu ko defee ba pare ñu bàyyi bërëb bi noonu pour ñu mën fa def aménagement bi nga xam te ne moom moom méngoo ak bërëb bi il faut que nit ñi comprendre que ne li ñuy def pour ñoom la ñu koy def mais nag leneen li ci nekk mooy dañu nekk ci dëkk bu nga xam te ne du caaro rek la la la dal mais c'est le Sénégal de façon générale liggéey moo amul ci dëkk bi motax nit ñi aussi yeen saa nga gis ñu tok fu nga xamantene même ñom tok bi ñu fay tok di daan seen doole sa ñàkk pexé motax ñu fay tok motax ñun aussi on est dans la réflexion on est en train de travailler avec des partenaires la preuve le co la coordinatrice du Promogem ñëw na Thiaroye-sur-Mer daje ak monsieur le maire ñu signé une convention de partenariat et ci bir convention de partenariat euh defaraat mini marché yi nga xamantene dañu dañoo nekk ci kaw tali bi daf ci am wàll bu am solo te am nañ yaakaar ne incha allah euh, le projet la dinañ ci jublu dans les semaines à venir et buñ ci àggee peut-être jafe-jafe boobu nga doon gis ci wàllu tali bi en terme dina soppeeku bu baax a baax parce que xëy na ñi fa nekkoon di jaay ñi nekk ci bërëb yu nit mën a toog di jaay dinañ leen fa bàyyi mais dinañ ko defaraat dinañ ko adapté bu mu méngoo ak jamono ba nga xamante ne képp ku romb di nga mën a accepter li fa nekk mais aussi euh, di nga yëg ne cadre de vie bi amélioré nañ ko bu baax a baax. Euh, xanaa sant yàlla parce que bépp parti bu nga te ne ñu ak moom ñoo àndoon dem ci élection yi ñu ngi continuer di nekk ak ñoom ba tey ba fi may waxee ak yow démb monsieur le maire bi muy génn moom ak ñaari adjoint au maire am yu nga te ne Pastef la ñu bokk ñoo ànd moom ak adjoint premier adjoint au maire bi nga xamante ne moom moo jiite PUR ñoo ànd moom ak euh, le responsable de bés du ñàkk muy Mbaye Sarr Bey à sur Mer ñoo ànd bakki bi muy dem ci benn activité bu amoon bu amoon ci biir mairie bi waaw mu nekk conseil municipal teew ci wetam Seydina Limamou bi nga xam te moom moo jiite PRP au niveau de thiaroye sur démb bi ñuy dem ci activité au niveau de la VDN également ñoo ànd euh, Ibra Ndaw bi nga xam te ne moom moo jiite bés du ñàkk euh, wala FSD BJ au niveau de Thiaroye-sur-Mer moom tamit moom mooy président commission coopération extérieure moom tamit du ñu réeroo chaque jour ñu ngi déggante donc bépp parti bu nga xam te ne monsieur le maire dafa àndoon ak moom ci élection bi parti yooyu tey lañ gën a dëggal seen ànd ak moom non seulement ci biir coalition bi mais dans la gestion de la municipalité. monsieur le maire maître El Mamadou Ndiaye moom mooy le coordinateur départemental de Taxawu Sénégal au niveau de Pikine moom mooy le coordonnateur communal de Taxawu Sénégal au niveau de Thiaroye-sur-Mer donc moom responsable bu mag la ci biir Taxawu Sénégal te monsieur ku ko xam aussi. xam ko ak xalifa Ababacar Sall parce que maa ngi lay wax sànq ne la maa ngi ko xam ci parti socialiste dans les années 2006 2008 donc xam nga loolu ça date de très longtemps depuis boobu laa ko xam ci parti socialiste te boobu ak léegi yëgaguma fu mu génnee ci parti socialiste aujourd'hui yàlla dafa dogal mu bokk ci branche parti socialiste bi nga xamante ne ñoom dañoo gis ne lii xalifa Ababacar Sall di di ci wàllu socialisme moom moo leen moom moo leen gën a intéressé donc aujourd'hui c'est normal que euh, El Mamadou su fekkee ne xalifa Sall dafa am fu muy dem mu ànd ak moom parce que loolu lu xalifa Sall sax di sàkku la parce que Khalifa Sall ku am yaakaar la ci maître El Mamadou Ndiaye euh, moo tax ma ma ci profiter d'ailleurs di wax waa Caaro yu ko ne am nañ doom bu nga xamante ne doom bu ñu war a bu ñu war a accompagner la parce que doom bu am avenir la ci ci ci non seulement euh, Thiaroye yu Mer le département de Pikine mais dom la bu nga xamante bu am avenir sur le plan national. ah oui bien sûr parce que mu dans la cellule des cadres du parti socialiste. Voilà, dans la cellule des cadres de de Taxawu Sénégal. donc euh, ce n'est pas n'importe qui dans dans dans Sénégal bokk na ci task force bi nga xamante mo le président Khalifa Ababakar Sall. Nek na ci ñi nga Khalifa Ababakar Sall da fay diso ak ñom ci ay décisions yu muy jël dans le cadre de Taxawu Sénégal. parce que nak li tax ñu tann ko pour def ko le coordinateur départemental de taxaw Sénégal nekul nen parce que japp sur les responsables de taxaw Sénégal yi ñu am sur le plan national japp naa ne bokk na ci ñi ci gëna nek xalé waaw donc euh, El Mamadou mom taxawayam dans le parti nekul lu kenn di tablé so andé ak mom d'ailleurs dem dans les rencontres du parti ci nga koy xam il est respecté par tout le monde képp ko xam mu nek un responsable du parti socialiste wala mu nek un responsable de taxaw Sénégal sa yo dajé ak mom and ak maître El Mamadou Ndiaye da ngay gis né xalé la buñu xalé la buñu ñu respecté loolu nag ko may moy moy yaram ben mais li ko may moy constance am dans le dans le parti et ça c'est très important parce que politique aussi euh, du luy du luy du luy euh, du luy xëy rek du luy xëy rek euh, tabbi mm-hmm. waaw dafa am fu muy jaar mm-hmm. monsieur le maire fu nit pour meuna un leader politique chevronné pour meuna un leader politique respecté monsieur le maire à travers tous les instances yi nga un parti toutes les instances yi nga un parti politique il a milité dans les mouvements de jeunes il a milité dans les mouvements de formation il a milité également dans les instances nationales donc aujourd'hui s'il devient responsable incontournable de au Sénégal au niveau national ñun ñi nga xam xam nañ ko depuis suñu ba suñu ba âge ça ne nous surprend pas. taxaway bu bu naturel la bu normal parce que day nekk rek ce qu'on appelle une continuité parce que il faut pas que nit ñi diko faté monsieur le maire il fait partie de la coordination des acteurs de Thiaroye-sur-Mer et tay ji fi may waxee ak yow mom ak collaborateurum yu bari yi nga xam mu ngi nekk ak ñom ci biir mairie bi kérok biñu démé ba le projet de restructuration. Euh, projet bi xawa xawa xawa a sooxe ay doomu caaro yi dem def euh, une acti une activité de manifestation bi ñuy def lancement wu activité bi bi ñu demee ba affaire bi di dox tuuti ba benn jëmmu jamono mu am léthargie monsieur le maire bokk na ci ñi nga xamante ne moom ak yenn ci ay collaborateur am ñoo lancé wu lu ñuy tuddee un comité d'action et c'est à partir de ce comité d'action là ci la ñu defee notre opération bi nga xamante ne moo nekkoon non à la poursuite des travaux de la baie de Hann sans la restructuration de Thiaroye-sur-Mer et cette dynamique là bokk na ci li tax ñu agsi fi ñu agsi parce que marché bi ñu defoon keroog jëlee ko euh, station Shell bi nekk ci marché bu Thiaroye ba ag fi travaux yi doon amé dende keur Serigne Thiaroye bokk na ci dynamique bi nga xam te ne moom moo déclenché tey fi donc tay su nekkee meeru Thiaroye-sur-Mer di continuer di doxal de continuer de revendiquer de continuer de taxawu le projet de restructuration de Thiaroye-sur-Mer da nous wané né la conviction bi mu amoon démb ak barki ak cette conviction là elle reste intacte et mieux encore monsieur le maire daf ko dans l'une de ses premières interviews bi ñu ko falee ne peut pas on peut pas refaire Thiaroye-sur-Mer on ne peut pas développer Thiaroye-sur-Mer sans le projet de restructuration donc ça montre clairement que le projet de restructuration de Thiara sur mer dans le cadre du projet de la dépollution de la baie de anne est un projet bu am solo si nous suñu nous ba à restructurer Thiara sur mer je suis convaincu que Thiara sur mer dina un ci dëkk yi nga important pour nous. nit ñi dañ nar fu di sur mer parce que ku gis le projet de restructuration li mu nara très important, c'est di nga sur mer ñun ñëpp dañoo wara a doon benn xeexandoo pour que ñu réussir ce projet de restructuration là parce que ce qu'on appelle le salut de Thiaroye-sur-Mer sur le projet de restructuration lay amee waaw li ma bëggoon wax mooy euh, xamal waa Thiaroye ne ko ne monsieur le maire dina si dellu siwaat incha allah dans le cadre d'un de daje bu mu nar a am ak yéen waa presse bi pour waxtaan ak yéen ci fi mu jaar bi mu ñëwee ba léegi ci at bi nga xam te moom la ñu romb mais xamal leen ne rek toutes les les promesses yi nga xam te ne defoon na ko waa sur mer alhamdulillah mu ngi ci monsieur le maire euh, bis bu yalla sak mu ngi mu ngi xalat mu ngi dox ci lu nga xamantene japp na ne motax wa sur Mer tek ko fiñ ko tek et aujourd'hui on peut remarquer que liguey bi nit ñi ñu ngi gis sur le terrain parce que nak lo rek mo am solo je pense que wax ji amul solo li am solo moy jëf bi nit ñi di jëf sur le terrain et aujourd'hui ni ko wa keur président Abdoulaye Wade doon waxee weddi gis bokku ci dans beaucoup de secteurs d'activité soo fa demee mën nga yëg ne monsieur le maire mu ngi fay def ay jéego so jëlé l'éducation monsieur le maire mu ngi def ay jéego wax nañ ci sànq so jëlé le plan sanitaire monsieur le maire mu ngi ci def ay jéego y a la réhabilitation du poste de santé de Thiaroye Azur monsieur le maire mu ngi xaar un conteneur bu yapp matériel médical bu nara a euh monsieur le maire aussi euh, dans la gestion Euh, de la euh, du domaine euh, de la compétence transférée santé en terme d'organisation am na ay jéego yu bari yu ci def ci wàllu cadre de vie gis nañ ne gis ngeen taxawaay bi mu am ci inondation yi ñi nga xam te ne ci la ñu génn lépp luy point bas au niveau de Thiaroye-sur-Mer monsieur le maire installé woon na fa moto pompe rax ci yi aussi di doté en carburant ñi nga xam te ne ñoom ñoo nekkoon ci secteur yooyu gis ngeen opération wu Euh, reprofilage u mbedd ciaré sur mer yi nga xam la def ba tax wa ciaré azur alhamdullilah jafe-jafe yi ñu doon jankontel ci walu inondation at yëm ñu genn sant yalla suñu borom jankonté wuñu ko mais li gëna am solo moy li muy def ci walu social abdou karim bis bu sak euh monsieur le maire mu ngi xar tànk tubayam ci ordonnance yi ay doomu caaro di indil bis bu yalla sak mu ngi sol dalam di dem di fekk wa ci seen ay deej mu ngi sol dàllam di fekk waa caaro yi ci seen ay ngénte mu ngi sol dàllam di fekki doomi caaro yi ci seen ay rencontre dans le cadre de leur quartier mu ngi sol dàllam di seeti waa caaro yi di partager ak ñoom son projet de société di déglu waa caaro yi aussi ñu koy wax seen xalaat ci lu nar a jëmale kanam caaro yi sur monsieur le maire mu ngi dugal loxoom ci xewu caaro yi sur ci wàllu tabaski ci wàllu korité mu ngi jàppale les imams aussi pour accompagner leen ci wàllu tabaski bi parce que jàpp na ne dafa bokk ci ay prérogative am Abdou Karim monsieur le maire aussi ci wàllu éducation mu ngi accompagner les étudiants en termes de bourse fekkoon na fi ay convention de formation yokk na convention de formation yooyu fekkoon na fi ay bénéficiaires de bourse yokk na say bénéficiaires de bourse là donc jàpp naa ne euh, li olof ñaay naan ti cin su naree neex su baaxee dafay xeeñ cinu Thiaroye sur Mer ci reñu monsieur le maire li muy xeeñ ñun am nañ yaakaar ne neex na te loolu du ñun ñoo ko wax waa caaro yi ñoo ko wax ñaan yàlla suñu boroom mu suturaal ko jàppale ñi muy àndal ba yéene bi nga xam te ne moom la am ci caaro sur mer yéene boobu mu mottali ko parce que nag loolu rek moom moo ñuy tax bi sonn bis bu yàlla sakk voilà donc Abdou Karim waaw ñun ñoo gën a kontaan di la di la remercier bu baax a baax ci ñëw bi aussi di la sant di la di la gërëm. en tout cas visite surprise la mais surprise bu ñu neex la parce que vraiment am na solo jaajëfale également ci opportunité bi nga ñu may aussi ñu mun waxtaan ak waa Thiaroye sur Mer que nag ak loo ci mën a dégg ñun amuñu lu gën a rëy Thiaroye sur te lu ñu am caari sur moo ñu ko gënal parce que suñu rêve bi gën a mag muy xëy bis gis Thiaroye sur Mer mu soppi xar kanam mais mu soppi ko aussi si jamono bi nga xamante ne ci la yàlla dogalee monsieur le maire maître Mamadou Ndiaye di jiite Thiaroye sur Mer merci beaucoup Abdou Karim di ñaanal internet yi nga am te ne ñooy seetaan Sénégal jàmm TV yëpp yàlla defal leen jàmm mais aussi ñaanal na ko yow ñaan également liggéey bi ngay def yàlla mu taxawu la ci mais aussi mu yokk la ci bu baax a baax ba xëy na incha allah dans les années à venir nga àgg ci si niveau bu nga xamante ne niveau bu weesu fi ñu ko doon xaar la jërëjëf.